actuellement li secteur bi di dund. Mm-hmm. metti na lool. Mm-hmm. waxuñu essence bu cher bi. Mm-hmm. waxuñu euh, gunda xataal yi. mais même ta oto yi ñu war renouveler sax problème la. parce que conditions yi leen di proposer moom ngeen mënul. moom ngeen mënul. te changer parc bi jot na. mais nag mënul doon daan n'importe quelle condition. il faut que mu doon ay conditions yu ngeen àttan. conditions yu baax ci yéen. comme que dama koy waxtaaneek ak sama way jur nag donc xam naa ne rek temps yi metti na lool mm-hmm. moo tax ñun ci li ñu gëm suñu programme mm-hmm. dañ ko ci boole gis nga otoog saxaar ñooy développé réew ñooy développé réew te suñu bëggee réew mi dem oto chauffeur transporteur ñooyam il faut que ñoom ñett ñëpp ñu gis seen bopp ci li ñuy def te loolu mooy li jafe temps yi donc ñun loolu la ñu jàpp ak nag ñëw fii pour taataan lu ngeen ñu xelal rek bëgg nañu parce que noonu la ñuy doxalee mm-hmm. nit ki doo ko fekk ci li mu nekk mu nekk ci ay at di ko dunde nga bëgg wax nan lay defee xam nga day jafe mm-hmm. moo tax ñun démarche bi déglu leen root ci yéen taataan ci yéen moo ñu ëppal solo ñett yi ma wax parce que damay dégg sama ñoom way jur di ko xulóor tout le temps changement parc bi changement parc bi ak tracasserie yi loolu seen diggante ak alkaati yeeg gendarme yeeg yooyu yëpp yooyu yëpp la ñuy xuloo ñoom di ko kaas mais yéen a ma gën a xam li ngeen dund donc lu ma root ci yéen rek bëgg naa. salaamaaleykum wa rahmatullah mbooloo mi ñu ngi leen di siyaar bu baax a baax di leen bëgge bu baax a baax. di wax ci euh, kàddu suñu kilifa gii di Mame Gaye Sène euh, mu nekk président bi euh, ginnaaw moom nag man man maa fi nekk comme président d'organisateur comme moom bu demee bu ñëwaatee man maa ko dee rendre compte maanaam kon terrain bi lépp li fi xew rek man xam naa loolu noonu bu baaxa a baax a baax a baax waaw bu loolu weesoo nag comme que da ngaa ñëw seet si ñu ba pare maanaam waxtaan wi li ma ci gën a neex mooy comme ñun ñëw la gën a maîtriser terrain bi maanaam ci biir loolu nga ni yow après ñun ngay déglu kon loolu ñu ngi la ciy sant di la ci gërëm bu baax a baax fii nag li ñu fi metti liñ fi metti bëri na bëriwul ndaxte képp kuy liggéey ci wàllum transport boo ñëwee euh, laal ñu ci mbirum transport dañuy sawar lool pour wax ci maanaam mbir mi mooy maanaam ñun ñi ñëpp benn lañ plus de trois cent personnes ñu ngi ci garage bi ñoom ñëpp bu ñu xëyee fii la ñuy wutesee li nga xamante ni moom la ñuy yóbbul ci seen kër kon laaj na organiser bu baax a baax a baax a baax kii di président bi di Gaye Sène moom mu boole jiital trois cent personnes yooyu yëpp xam nga ni ku ne xam na ni ay xale yu ndaw fu ñu dajee euh, maanaam deret yi day tàng jër maanaam lépp li nga xam ni bëgg nañ nga ñu jàppale ñu ko ci moo di maanaam suuf bi fii bëgg nañ ko ñu ko pavel maanaam njàpp mi ngay gis ci tali bi di dem di ñëw tamit loolu nga souligné noonu loolu noonu dëgg la chaque jour ñu ngi dund loolu ñu ngi ciy dox mais chaque fois rek étape par étape la maanaam mënuñoo ñëw ñëw ni définitivement lii dafiy jóge parce que réew mi dafa am na muy doxe réew mi dafa am ay sart yi nga xam ne moom lay doxee léegi nag comme que terrain bi yëkkati nañ ñu ko jox ñu ko yéen ñëpp suñuy fil kilifa ngeen amul politicien bu dul jaar fii politiciens yëpp dañuy jaar fii mais bu ñëwee waxtaan wi rek li ñu waxtaan ak ñoom rek comme yi ñuy waxtaan ak yow loolu la ñuy ak ñoom léegi nag gaa yaa ngi nii benn kaddu moo fi jóg kaddu gi kii moo ko yor man maa dee exécuté kii bu kaddoo man maay génn ni gaynde kaddu na lii ñun ñëpp benn lañ. bu ko defee nag lenn lañ bëgg comme mbooloo mooy doole te mbooloo mooy doole ñun daal képp ku ñu jàppale ñu jàppale la. liñ suñu jàppale nag mooy suñu terrain bi suñu garage bi moom lañ am nuñ ko fexee moderniser ba mu taxaw loolu lañ am. su li nga tamit lu ama ama ama am solo chauffeur si li ñuy dund tar na tar na lool lool lool ba nga xam ni egg na ci maanaam gémmiñ mënul wax loolu noonu léegi kon nag tey jii ni supérieurs yi ak tey savez euh, euh, pendant les élections nii ci lañ mën a amee nag audacité mën a yëkkati loolu wax ko bëgg nañ ci torop kun ci jàppale ñi ngi def nag ay pas ñi ngi def li nga xamante ni lépp lu ñu mën ñun ñi ngi koy def entre ñun ak policiers yi ak maire ñun ñi ngi def nu mu mën a ratexe népp nu mu mën a ratexe ñu ngi koy jéem a def mais xam nga rek li ci biir maanaam du ñëpp ñooy bokk jëmuwaay ñii dañuy jëm nii ñii jëm na léegi nag ñun ñooy boole li ñu neex ak li ñu naqari di ko dundandoo ci suñu biir comme que nag kilifa nga ñëw nga jàkkaarloo nañu ak yow lii kese mooy mébén mi maanaam ku ñu jàppale ci terrain bi mu valoriser mu am valeur naam gaa am na kayit waaye tey ba léegi rek terrain bi ci wàllu boppam rek moom itam yitte woon nañu mu gën a nekk li nga xam ne mooy nekk suñu moomeel kon bu ñu demee ba valoriser ko rek maanaam ñun dañuy xalaat xam nga tey jii nii bu dee suuf si suufu état la tôt ou tard mën nañoo ñëw bale ñu fii mais nag tey jii nii ci biir loolu noonu ngay gis maanaam ñaata doomi aadama ñoom ñoo yeewoo fii waaye ñaata doomi aadama ñoom ñooy jox seen i ñooy jële fii di yóbbu seen i kër fii ku fi dépensé wul cinq mille francs yaa ngi dépensé wu six mille lépp fii lay jóge kon ñun dañuy ñaan maanaam terrain bi nu mu valoriser woo rek nu mu valoriser woo rek la ñuy ñaan te jëm yàlla jërë ngeen jëf. Khalifa Sall rek la ñuy xam lébu lébu di sama mag la sama mag a ngi Thank you. dëgg la li nga def si man loolu laa moom mi ñëw na fii waaw campagne li may wax rek fii problème mu foncier lañ am ana mboj ana fulla ak fayda ak jom la fa nekkee woon ah, te léegi loolu la jàmbaar la dama ne ko nag yow moom su ma eggee nga egg incha allah incha allah jërëjëf la ñu am bari problème bu foncier waaye de mbooj pour ah. ñu mbooj waroon a a nekk ci temps xaw a yàqal ñu ngi leen a a a baax yàlla def jàmm bu a baax jërë ngeen jëf ah, am comme deux wékkat bu nekk am na di yaram. Sénégal am na docteur. jàppale leen Khalifa. kii la ñu dénk kii mooy Sénégal. kaay la ñuy topp yow rek la ñuy topp toppuñu leneen waaw waaw. waay waaw comme ni ngeen ko gisee euh, ñi ngi fii nga xamante ni mooy Bargny euh, ci garage Bargny bi président wàccoon di waxtaan ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci garage bi responsable yi nga xamante ni ñoom ñoo gere garage bi donc président wàcc na euh, président Khalifa Ababacar Sall ngi noonu di dox di ñëw di nemmeeku askanu bi nga xamante ni mooy askanu Bargny Bargny nag euh, ku ko wax wax nga dëkk boo xamante ni dëkk bu mag la waaye ku ko wax wax nga dëkk boo xamante ni dëkk bu am popularité la donc askanu Bargny gis ngeen ni ñu génnee di dalal ki nga xamante ni mooy le président ba Ababacar sàll fii nga xamante ni mooy dëkk bi ñu naan Bargny